أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala ñu ngi àndaat ak yéen ci téere bi di bulu almaram ñuy jël tey ñetteelu xadis muy xadisu abi umama albahiliyi radiallahu anhu wa ardaahu ñu ngi doon sàkk ci mbokk yi ci dars yi passé ñu indaale téere yi te di mokkal xadiis yi parce que dafa gàtt xadiis bi ñuy jël tey dafa am relation ak xadiis bi passé njël benn mooy kan mooy abi umaama boroom xam-xam bu mag bu ñuy tuddee ibnu abdul bar te mu nekk fóore ci ngirum imaamu malik mi ngi wax ne abi umaama day lam yaxtalifu fi zalika yaani fi ismihi wa ismi abihi ibnu abdul bar nee na sahaaba bi tudd abi umaama mu ne turam kenn wuute wu ci léeg-léeg nga jàng benn turu sahaaba ñu wax ci ay wax yu bari comme Abu Hurayra wax nañ ci turam lu tolloo ñeent fukki wax amma Abi Umaama nag turam moom kenn wuute wu ci ak turu baayam ñu ne sakana Abu Umaama Misra Égypte la dëkkoon après mu toxoo fa dëkk Hims ñu ne moom mooy saxaaba bi mujjee faatu ci saxaaba yi ca Saam saxaaba bi mujjee faatu ci saxaaba yi wa huwa axiru man maata min as-saxaaba bis-Saami kaana min al-muksirina fi riwayat ku bëri lu mu solo ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam la ci ay xadis am na ñu ne mu ngi faatu sanata sitta wa samanin atum juróom-ñett fukk ak juróom benn ñu ne ci la gaañu génn àdduna radiallahu anhu wa ardaahu abu umaama ne yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ne inna almaa la yunajjisu shay illa ma galaba ala riixihi wa taamihi wa lawnih axrajahu ibnu maaja wa daafahu abulxaatim abu umaama nee na yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na inna almaa naka ndox laa yunajjisu shay dara munu ko sobeel ndox daal dafa set dara munu ko sobeel mu ne illaa lu dul maa xalaba lu noot ala riixihi ci xet gi ndox bu fekkee am na lu ci dugg ba changé odeur bi ndox moomu yàqu na wa taamihi wala mu changé cafka gi loolu yàqu na wa law ni wala mu changé couleur bi loolu yàqu na hadis bi ibnu maaja moo ko génnee waaye ku ñuy wax abul xaatim dafa daifal hadis bi waaye maanaa hadis bi dafa wér am na boroom xam-xam yoo xam ne dañu ne maanaa gi moom lu ñuy jëfandikoo la nekkul ne rek abu xaatim moo ko daifal imaamu nawawi wax na mu ne ittafaqa al ulama ala tadifihi boroom xam-xami imaamu nawawi mooy ki bind riyaadu saalihin ak arbauna nawawi nee na boroom xam-xam yi dañoo dëppoo ci xadis bi dafa dafa daif dafa faible mu ne wa mimman hakama ala daafihi ala daafi alhadis jam'un min ahli ilmi mu ne ñi d'accord ci daifu hadis bi nee na mbooloo lañ ci boroom xam-xam yi moom imaam Nawawi ci la bokk ibnu xajar borom téere bii di bulughul maram ci la bokk dafa daifal hadis bi ibnu xibban daf ko daifal ibnu munzir daf ko daifal shafii ak bayhaqi waaye li ñu dëppoo mooy ibnu munzir nee na ajmaa al ulama ala anna al maa al qalil wal kasir ida waqaat fihi najas fa gayarat lahu taaman aw lawnan aw riixan fa huwa najas ibnu munzir nee na ndox di boroom xam-xam yi dëppoo ci àtte ndox moo xam ndox mi dafa bëri moo xam ndox mi dafa dafa néew barakallahu fiik moo xam ndox mi dafa bëri moo xam ndox mi dafa néew li ci borom xam-xam yi dëppoo mooy iza waqaat fihi najas bu ci sobe duggee ndox maa ngi ni sobe dugg na ci moo xam dafa bëri moo xam dafa tuuti bi ci sobe bi duggee tàbbi ci fa xayyarat lahu taaman mu soppi cafka bi aw lawnan wala mu soppi couleur ndox mi aw rihan wala mu soppi xeetu ndox mi ñu ne kon ndox moomu foofu wa najas ndox moomu léegi nekk na sobe kenn mënatu koo jaamoo yàlla kon ndox nan la ñuy xàmmee setam moo xam ndox mi dafa bëri moo xam ndox mi dafa néew nu mu mën a toll quantité bu mën a toll liñ koy àttee mu mën a jëriñ nit ci jaamu yàlla mooy na fekk xet gi soppeekuwul cafka gi soppeekuwul couleur bi soppeekuwul bu doon bëri ko ndox la bëri na wala bëriwul bëri na am lu ci dugg ba changé couleur bi wala mu changé xet bi wala mu changé cafka gi bëri ko ndox boobu est-ce que dañ ciy jaamu yàlla bu doon siwo la it tuuti na de lu ci mën a dugg changé ko kon ndox moom kenn dootu ko utiliser kon daal atte bi mu ngi ci ñetti melokaan yooyu atte bi foofu la aju ndox mi lu muy nu mu mën a toll yow pour nga jaamu ci yàlla daal jox nañ la misaal jox nañ la tegtal lii saa yoo ko seetloo ci ndox yow war ngaa mën a àtte ndox mii mën nañ cee jaamu yàlla wala mënuñ cee jaamu yàlla mu ne fal ijma li boroom xam-xam yépp ànd huwa dalilu ala najasati ma taxayara ahadu awsaafihi li boroom xam-xam yépp ànd mooy lépp loo xam ne benn ci melokaanam yi changé na ndox moomu ndox moomu yàqu na léegi nag am na masala bu ñëw ñu ne isa waqaat an najasa fil maa'i ndox dafa dugg ci sobe ndox moomu fa haza la budda min umurin ndox moomu il faut mu am mbir yi sobe moo dugg ci ndox bu njëkk mooy an nu sabbita najasata hadha al ma balaa ñuy def dara mooy nañu gëstu nañu wéral sobe bi dugg ci ndox mi lan la def ndox mi bu fekkee saw la wala dem àll ba la wala leneen lu dul moom bi mu duggee ci ndox mi nan la def ndox mi dafa changé benn ci yii su fekkee changé na ko kon léegi lu ci war fuppi bu ko changé wul nag ndox mi kon baax na mu des sa xel a ko nangu wala nangu ko waaye ndox mi moom sharia nee na la ndox mi baax na mun nga kaa jaamoo yàlla ñaareel isa kaana al maa qalil bu fekkee ndox mi nag moom dafa tuuti wa waqaat an najasa fiihi sobe daat ci tàbbi dafa tuuti ndox mi daa tuuti sobe dugg ci boobu luy ateem mu ne la fa sahih annahu ida taxayarat ahadu awsaafihi salaasa li wér mooy benn ci atte yooyu su soppeekoo waaye yim la joxoon ñetti melokaan yim la joxoon fa innahu najas ndox mi sobe la cheikh bu ñu naan ibnu taymiya loolu la tànn ak ibnul qayim ibnul qayim sax dane wax ji mooy qawlul jumhuru salaf mbooleem boroom xam-xam ya jiitu loolu mooy seen àtte ndox daal mu tuuti mu bari li koy yàq walla li tax mu baax mooy tegtal yi ñu la jox benn ci couleur yi ci melokaan bi ci cafka gi bu changé wul ndox mi baax na ñetteelu laaj mooy iza kaana al maau kasiran fekkee ndox mi nag moom daa bëri fa innahu la yaxkumu bi najasatihi ba tey rek mu ne kenn du àtte ndox mi illa lu dul iza taxayar ahadu awsaafihi salaasa assaabiqa ibnu usaymin loolu la wax usaymin nee na ndox même su baree sobe dugg ci àtteem mooy nañu xool rek ñett yi ndax changé na bu changé xet gi cafka gi couleur bi ndox mi yàqu na mu des beneen laajte iza waqaa shay'un tahir fil ma'i léegi nag ndox mi ñu doon wax sànq yëpp lan moo ci doon dugg ndox mi nag lu set moo ci dugg lu mel ni ataaya wala naana dafa am laaj bu ma bëgg a laaj kan moo may tontu yow naanaa lan lay changé ci ndox cafka bi ataaya lan lay changé ci ndox couleur bi naana ak xet bi xet bi lay changé du changé cafka bi gis nga léegi ndox moom lu yaateem ndax dañ ko dañ koy jàpp wala dañ koy sangoo ah ah ci lan ci aada lan mooy aada ci jàpp nag ci jaamu yàlla nag ci jaamu yàlla nag waaw lu tax waaw ah du sobe yow waaw waaw léegi nag li ci dugg lu set la waaye dafa set de mais changé na couleur bi bee changé na xet bi léegi lu lu ci àtte bismillah kenn du ko jaamoo yàlla ndax couleur bi changé na nekkatul ndox bañ nañ ko ba léegi ni ñu ngi ko tuddee ataaya wala bisaab bu xonq la kenn dootul wax indi leen paanu ndox mi dañ naan indi leen paanu ndox mi changé na bu doon saabu la sax dañ naan kenn dootul wax indi leen paanu dañ naan indi leen fóotin bi parce que changé na couleur ba changé na ndox ma nekkatu fa mais fekk ñu ngi naan paanu ndox mi rek indi ji leen ñu jàpp kenn du fekk ñu xooj bisaab ba pare tàkkusaan jot wala timis jot ñu war a jàpp ñu ne indi ji leen paanu bisaab yi ñu jàppee ko lu ñuy wax indi indi leen bisaab bi ñu naan buñ paree julli loolu la ñuy wax mu ne fa haza lahu xaalataani ndox bu ci lu set duggee ñaari règle moo ci am ñaari atte bi ci njëkk bi imma an yataxayyara lawnu lmaai fa taxlibu alayhi almaddatu allati saqatat fihi fa yusbihu lawnu lmaai ka lawnu shaay fa haza la yajuz alwuduu bihi liannahu zala anhu musamma alma mu ne ndox bu ci lu laab duggee ñaari mbir moo fi nekk lu laab li dugg ci ndox mi daa dem ba not couleur ndox mi wala mu not xeetu ndox mi wala mu not cafka ndox mi su boobaa kenn dootul tuddee ndox mi ndox la ko noot noonu lañ koy tuddee bu ko bisaab bi nootee lu ñuy wax bu ko ataaya ji nootee lu ñuy wax bu ko saabu bi nootee lu ñuy wax génn na léegi ci xeetu ndax lee moo ko noot nee na su boobaa laa yajuuzu alwuduu bihi kenn dootu ci jàpp suñ ne kenn dootu ci jàpp mooy kenn dootu ci sangu set kenn dootu ci kenn dootu ci kenn dootu ci lépp lu ñuy wax pour wàllu jaamu yàlla ci wàllu sangoog njàpp ndox moomu kenn dootu ko utiliser mais pourtant lu laab moo ci dugg ñaareel bi règle bi mooy wa amma in yataxayyar lawnuhu wala yazaalu anhu almusamma alma fa hada la ba'sa min isticmaalihi li annahu la yazaalu alayhi musamma alma ndox mi day lu laab moo ci dugg waaye lu laab li day changé wul dara ci ndox mi dugg na ci mais changé wu bu doon paan ndox la ay quelque xobu bisaab moo ci dugg xam nga loolu mënu ko changé paan bi mënu ko xonqal wala tuuti war gaa ci dugg wala morso suukar moo ci dugg xam nga paanu ndox bu ci tëmbalee benn bekk suukar wala ñaari bekk ah wax dëgg yàlla loolu suukaru ko wala ñetti topp xorom ah changé wu ko su boobaa la ca dugg changé wul couleur bi changé wul cafka gi mais dugg na ci ñëpp gis nañ dugg na ci ba seey mais changé wu ko ba léegi ku ko tiim suñ ko nee lii lan la danaan ndox turbaan fa mu ne su boobaa fa haza mu ne lii la ba'sa min istimaalihi bonul ñu jëfandikoo ko lu tax mu ne li annahu la yazaalu alayhi musammal ma ba tey ñu ngi koy tuddee ndox kon sunu xadiisu tey doonte ne dafa daif ak borom xam-xam yi ko daifal yëpp atte bi wér na ñu jëfandikoo ko lu tax mooy argumentation bi hadis bi argumenté boppam mooy ndox dara mënu ko sobee lu dul lu dul illa ma galaba alay ala rihihi wa taamihi wa lawnihi lu dul xet gi changé cafka bi changé couleur bi changé su boobaa ndox moomu laabatul tuddatul ndox sobe bu ci duggee muy yàqu ma nekk na sobe kenn doot ko jëfandikoo ataay moo ci tuuru wala warga bi lañ na wala mu changé ko bu ko kenn tuddatee ndox nañu xam ne nekkatul ndox lan la leneen la saw bay ci dugg changé ko bu ko kenn tuddatee ndox wératul ci sharia ñu ñu jëfandikoo ko amaa nag bu fekkente ne la ca dugg moom lu laab la waaye changé na ko encore su boobaa tamit mën nañ kaa jëfandikoo ci benn anam ci wàllu aada waaye ci jaamu yàlla kenn mënu koo jëfandikoo bu fekkee nag la ca dugg changé wul ñetti dara su boobaa ndox mi ba léegi ndox la set na laab na dañ koy jëfandikoo ci wàllu aada di ko jëfandikoo ci wàllu jaamu yàlla kon yaakaar naa bu ma doon tënk hadisu abi umaama bi mooy hadis bu gàtt la waaye hadis bu tënk diine la ndax day wax ci wàllu laab te laab mooy mooy jaamu yàlla ndax nit lu muy def ci wàllu jaamu yàlla te laabul rek yàlla du ko nangu ci wàllu jaamu yàlla lépp looy def te laaboo kenn du ko nangu boo laabulee sa jaamu yàlla kenn du ko nangu borom xam-xam yi nag firi nañ leen laab waxoon nañ leen ko incha allah doomu ndey mbokk yi li moo doon dar su tey su fekkee am na yeneen laaj yuñ ci war a laaj incha allah ñu yem ko tont asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh